organisé benn journée de don de collecte de sang ak ñoom tey bii mooy deuxième euh, édition bi daaw ñëwoon nañ fi te am nañ lu mu néew néew plus de cent poches actuellement boo xoolee hôpitaux yi la demande est maanaam lu ñu soxla rek du doy ci sang boobu maanaam les hémodialysés ak ñi nga xam dañuy def chimiothérapie dañ leen di dañuy soxla sang te luñ ci am du doy. kon nag sénégalais yi war nañu jege hôpitaux yi wala ñi nga xam ne les personnels yi nga xam ne personnel médical yi ñu sensibiliser leen wala ñu am information ci don de sang ndax tey ñi nga xam ne ci hôpitaux yi ñu ngi def chimiothérapie macha allah kenn xamul lu ñu toll te ñoo ñëpp dañ soxla ñu may leen deret même ñi nga xam ne dañ def ay séance dialyse dañ soxla ñu may leen deret bu njëkk dañ doon wax ne femmes en état de grossesse ñi nga xam ne dañu def ay mais actuellement ñoo ñoo gën a ndax bala nga xam suba rek boo ñëwee hôpital di gis ñi xam ne ñi ñëw di ut dara pour ñi nga xam ne def chimiothérapie la kon ñu ngi ñaanoo euh, ñu def jihaad fi sabilillahi man kaana lillahi kaana laahu lahu ñëw def nga xam ne nii mënoo wax ne jaamu yàlla mënoo si gën a may deret kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant te am na yaakaar ne bala ñoo paree dinañ fa lu néew lu ëpp téeméeri personne maanaam 100 personnes yu ñëw may deret te am nañ ci yaakaar sant yàlla daal am na daal changement day gëm naa bu déwénee mooy gën a yokk ndax au ñi dinañ gën a bëri nit ñi dinañ gën a sensibiliser wu gën a motiver wu aussi waaw macha allah maanaam euh, ñun dañ koy te bëri na ñun association yu budul sport family ay prestige gift ay Dóor waar ay ndimbal ñooñu ay jeunes sénégalais yu nekk fi dakaar fii dañ collaborer ak ñoom souvent di organiser journée yu mel nii te ñooñ da leen di kii maanaam ñooñu mën a wax patriotisme ak ak jaamu yàlla te génne woo ci xale yoo xam ne mënooñu defi leneen mais tey mën a wax humanisme génne ci don de sang parce que nit dina foo xam ne wallaay azim soxla bu ñu ko mayewul deret euh, mooy loolu mais sant yàlla rek maanaam bi nga xam ne nit ñi maintenant sont commence à être conscient xam njariñu may deret kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm tamit di remercier waa Sport Family seen taxawaay ñu leen di jaajëfal. depuis début bi ñuy formé Sport Family ñun si social lañu ñu débuté suñuy coach ci social la ñu débuté laajuñu dara donc ñun si social bi la ñu dana def même li ñuy laajte par mois benn euh, kii bu ndaw la rek bu participation. donc dañuy def bi mooy suñu deuxième édition euh, euh, don de sang pour dimbali malade yeeg ñi nekk ci hôpitaux yeeg yooyu parce que xam nañ ne maye deret moom c'est sauver des vies ñun dañ koy soxla keneen ak keneen dañ koy soxla donc nit mënul am jëf ju mu def bu gën a rafet que maye sa deret ku amul sa poche pour joxe mën nga am sa deret su la yàlla mayee kàttan boobu at wér gu yaram boobu nga maye ko c'est pour tout le monde. en tout cas ñun ñi ngi yaakaar ne ren mooy dana bari parce que daaw amoon nañ cent et quelques ren na comme yàlla def nañ depuis ñu organiser suñu euh, suñu suñu fitness club bi ñu def Grand Théâtre yàlla def nañu dañu manko ak club yi nga xam ne ñoo nekk Dakar donc dañu amat ñoom relation yu tendre yu baax lu ñu woote rek ñoom dañuy ñëw donc ñi ngi leen di xaar at ñeneen ak ñeneen en tout cas Sifar Famille dafa dana élargir wu. donc ñi yaakaar ne at bi yàlla mën nañu may ñu am plus de trois 300 poches. amaguñu partenaire quand mais ci biir Sifar Famille yi vraiment am nañ ay nit yoo xam ne ne ay kilifa lañ yoo xam ne bëgguñu fës. lu ñu dugal suñu loxo rek ñoom dañuy jël seen xaalis bopp def ci sport famille lu mu organisé am na si ñoo xam dañuy jël seen xaalis jox ñu contribuer ci lu bari loo xam ne du ñu laal suñu kii mais ñi ngi ñaan aussi ñi nga xam ne ne ñi ngi ci dëkk bi te yàlla may leen doole ñu jóg pour dimbali nit lépp loo xam ne ñun suñu loxo mi ngi ci biir rek ñu jàppale ñu parce que ñun tam dañu dañuy def ay kit d'alimentation si prison jigéen ñi bëgg nañ dem ci daara yi bëgg nañ dem ci hôpitaux xale yi yooyu yëpp donc ñi ngi personne bienveillant yu nekk ci Sénégal ndax ñun ñu ngi ci réseau yëpp ku bëgg a am suñu numéro ñu ngi ci Instagram ñu ngi ci TikTok ñu ngi ci Facebook soo bëggee am ñoo dimbali en douceur de doo ci kii mën nga jël suñu numéro am nañ commission sociale am nañ lépp soo ñu wootee dimbali ñu si social bi pour ñu dimbali ñi nga xam ne ne ay néew di doole lañ ci maye deret ci lekk ci naan ci lépp. waaye Sport Family bu ñu ko waxee mu ngi nekk benn club bu mag bo xam ne mu ngi nekk fii ci Liberté 6 euh, deux voies en face Campenal euh, ñu yëngu ci fitness. Euh, fitness sax ku ko wax xam ne sport la comme sport yëpp macha allah tàggat yaram ngir man a am suñu santé euh, mu ne club boo xam ne composé na plus de trois cent cinquante membres actuellement. Euh, di di def sport en même temps boole ci ay activité sociale waa don de bi xam nga mbooloo li ñuy wax rek fu ñu dajee macha allah ay boroomi xel nekk ci euh, ma ay kilifa aussi ñuy am ay initiative yu rafet chaque jour loolu moo waral donc c'est pas la première fois parce que bii mooy deuxième édition bi daaw defoon nañ ko amoon ci réussite cent trente euh, ren présidente bi ne pourquoi pas ñu am deux cent poches te et puis gars yi ñu ngi ci am na yaakaar ne fii ci kanam tuuti rek objectif bi dinañ ko atteindre ku wax don de wax social c'est pas la première fois dem nañ fi camp deux fois seeti détenus yi yóbbul leen vraiment ay ndimbal euh, bii mooy deuxième édition don de sang bi ñu koy organiser fa yéene muy continuer parce que ku ne sport ne santé ku ne santé ne don sang ñi nga xam ne dañu tëdd ci hôpital yi euh, soxla sang dafa bëri euh, accident yi bëri na et puis nit ñi maladies yi ñu ngi ci dëkk bi fees bi dell ñuy sensibiliser ñëpp groupe sport famille yi club la boo xam ne lii rek la xam mooy sport social organiser ay événement ñëpp bokk ndey bokk bàyyi waa activité sociale yi yaatu na parce que boo xoolee euh, groupe bi rek déjà social bi ci groupe bi la commencé parce que euh, club la boo xam ne léeg-léeg nit dina fi feebar groupe bi jël ko en charge léeg-léeg nit dina nekk ci ay difficulté group bi taxaw jël ko en charge ñu ci remercier nag euh, bureau bi parce que am nañ bureau madame la présidente Sophie Amine moo ko jiite euh, coach yi coach Aada Yong coach Jean coach Ouli euh, commission yi commission organisation Mor Thiaw ak ñi mu ci àndal commission sociale bi madame Madeleine Mbaye secrétaire général am nañ ay commission commission médical bi ñoom tey ñoo organiser événement bi kon sport familier yëmul rek ci Dóor a 100 ci lay defee ay ay ay social non mais social yi yaatu na ñu ngi jàppale nit ñi ñu ngi seeti nit ñi ñi nga xam ne dañ nekk ci ay difficulté aussi ñu ngi ñëw ci ñoom di leen jàppale pour psychologiquement ñu ñu ñu mën a nekk ay nit en même temps ñi nga xam ne dañ nekk ci ay jafe-jafe ci groupe bi daal lu ci mën a xew rek groupe bi da ciy tenir compte ak commission sociale bi ñu taxawu leen jàppale leen. waaw lu tax ñu organiser ko moom mooy euh, maanaam def ci def ci ndimbal ndax euh, ku nekk xam na ne euh, maye deret c'est obligatoire ndax day am ñu koy soxla ñun ñu koy maye sax ëllëg dañ koy soxla. kon dañu dañ dañu dañu dañ koy organiser chaque année bi mooy deuxième euh, édition bi ñu ñaan yàlla di koy def ay ay at incha allahu rabi di ñaan tamit aussi képp koo xamante ne mun nga ko mun nga koy def même bu dul événement yi mel nii aussi nga koy nga koy nga koy def boo demee ci banque de sang yi am na yoo xamante ne mun nga fa dem pour maye maye fa traite daal. no waaw xaw na difficile comme ni nga ko waxee mais yàlla dimbale nañu ci côté boobu parce que bureau bi maanaam nekk na bureau boo xamante ne nii dañuy liggéey. Euh, euh, liggéey bi ñuy liggéey benn nit ko liggéey dañuy àndandoo liggéey moo tax chaque instant rek bu ñu amee événement yi mel nii rek dañ ciy réussir macha allah ndax bu yàggul dara def nañ benn fitness so grand théâtre macha allah ñëpp euh, dégg nañ ko. dañuy def ay activités yu bëri mu activité sociale dañuy def ay activités yu bëri parce que même weeru koor bi organiser nañ fi conférence pour dialogue islamo-chrétien parce que am na ay chrétiens yu ne fi am na ay musulmans dañuy dañuy dañuy def ay fitness show dañuy def randonnée tout ay Euh, sociale euh, lu mel ni don de sang aussi dañ koy organiser ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy programme te ñëwagul incha allah. bés bi tey ñoo ngi ko def pour euh, dimbale ñi nga xam ne dañoo soxla deret tey nekk ci hôpitaux yi soxla deret te mënuñ koo am moo tax ñu organiser ko pour dimbale leen parce que ñoo ngi gis ne fi mu toll ni ñu ngi jugee ci ay événement bëri na ñi nga xam ne ñu ngi def ay accident ñu ngi soxla deret moo tax ñu organiser lii pour jàppale leen. comme ni ma ko waxee sànq rek dama ko def pour dimbale ñi ñi ko soxla ñi ko soxla dama ko def avec te aussi maa ngi ko def avec contentement kontaan naa ci lool moo tax ma def ko. bien xam nga may deret lu am solo la si doom adama te surtout ñu actuellement euh, dañoo constaté que yi dañuy manqué deret dañoo constaté que centre national de transfusion sanguine day day def appel pour may deret tey tey ñun euh, loolu la ñu gis ñu ne pourquoi ne pas ñëw may deret comme tout le xaar ñu chaque appel ñun xaaruñu appel. dañoo xam ne c'est une urgence c'est une nécessité ñu ne il faut ñu ñëw groupe famille comme daaw nu ma ko defee rew tamit ñu ñëw organiser cette journée pour may deret quoi surtout aux nécessités quoi. non no allah bu soobee yàlla day yokku parce que défi la quoi ñun lépp lu ñuy def dañ koy def par amour dañ koy def par vocation te dañuy chaque fois bëgg a relever le défi daaw amoon nañ plus de cent incha allah ren day ëpp wala mu doubler sax le nombre vu Euh, message bi jàll na sensibilisation bi jàll na depuis presque deux semaines trois semaines ñu ngi def ay sensibilisation boo xoolee sax aux environs y a des gens qui aux alentours ñu ngi def appel pour képp kuy romb bu dee am na disponibilité ñoom may deret quoi te am nañu yaakaar incha allah affaire bi day yokk quoi. waaw pour ñëw pour ma may dama ñëwoon pour maye deret ngir dimbali ñi nga xamante ne dañ ko soxla ndaxte boo leen seetloo fii ci Sénégal fii suñu réew bu ñu waxee maanaam màggal wala gàmmu. lépp lu ci mënti doon léeg-léeg danay am ay accident ci mbedd mi ci rue ci tali bi donc loolu war nañu gën a yokk tax ñun ñu jóg dem mais direct ngir mën a dimbali ñi nga xamante dañ ko soxla rawatina tamit ay jigéen yi nga xamante ne dañu tollu diggante ba de telle sorte que bu ñuy am doom dañuy soxla ku leen may deret ñun ñii nag nga xamante ne vraiment ñun am nañu wér gu yaram war nañu mën jóg di dem di may suñu deret te sax suñu sañoon dina am benn bés bu spécial boo xamante ne état bi da koy jagleel nit ci askan wi ngir ñuy jóg rien que pour dem maye seen deret ngir mën a dimbale ñi nga xamante dañ ko soxla